man nag sama jaar-jaar xam naa gudd na guddul ndaxte ci ci tëgg comme lu ma tàmm wax rek xale laa boo xam ne bu juddoo Pikine yaroo fa màggee fa voilà defee sama cursus scolaire comme xale yëpp jàng école dem lycée jàng fa eh, dugg ci ay petit métier lu ñuy woowee petit métier Sénégal yu bari bala ñoo ci rajo bala ñoo ci télé. Euh, parce que chaque jour li ñu doon animé dañoo juddoo ci kër yoo xamee ni kenn du toog ñu loolu lañ fa fekk donc ñu lu ma tàmm wax chaque jour jaay ndox jaay fataaya jaay promotion gérer télécentre jamonoy télécentre ak yooyu noonu yëpp ñu dugg ci ba par la suite benn jour laa déglu laa dégg sama yaay muy déglu rajo boobu maa ngi dëkk Pikine tali bu mag euh, muy déglu rajo ma dégg benn rajo XFM foofu laa foofu laa démarré sama carrière ma dégg Ousmane Diouf mu ciy wax ñu def émission làmb ma dem fa seeti leen yóbbu fa sama demande yóbbu sama CV ak yëpp noonu laa commencé rajo fa laa commencé ñu teg ma ci loxo kolos mu yor ma may def technique ma di ko téyal technique parce que moom lu muy utiliser dafay bëri ba ni ma commencé animé foofu def naa foofu cinq ans bay dugg sama sixième année si laa ñëw Zik FM troisième waaw <laughs> waaw xam nga pour ay raisons yu bëree bëri parce que déjà man benn yoon laa def BFM aw ma ma bàyyi sama sama ay professeurs yu ma doon jàngal donc ñu bëri toppaat nañ ma pour ma ñëw defaat non non lu tax nga bàyyi mais raisons yi tax ma bàyyi defe naa bokk na ci tey par exemple le temps était dur maa ngi woon ak sama yaay. en fait duma duma taaw am naa am naa eh, benn grand frère donc am naa benn frère boo xam ni moom mooy sama taaw yaay mais bon li ñuy wax chaque jour su la jom di animé donc am na fay toll foo xamante ni donc je pense euh, da ngay loolu du nekk du nekk leneen mooy nekk sa bopp ak euh, yooyu loolu daal moo taxoon ma bàyyi moom loolu woon bi bi tax ma bàyyi. ay ay euh, bi may jaay fataaya boobu sama parce que boobu c'est pas man maa doon jaay sama yaay moo doon jaay mais dama doon jàng ba wàcc ñëw jaayal ko ndox aussi parfois boobu la xam nga double flux di soog am su fekkee xëyuma damay xëy dem jaayali ko su nekkee damay damay gontu noonu laa doon def daal au fait su ma gontoo ma xëyal ko su fekkee damay xëy ma gontul ko moom noonu laa doon def mais mës naa mës naa di jaay ndox diggante tali essence tali bu mag. laa doon jaayee ci carapit yëmbal yeeg affaire yooyu ak géejawaay ba marché zinc fi carapit géejawaay di taxaw foofu laa doon jaay mais benn jaay ndox dajeeg sama benn maîtresse mu ne ma ne ko ma ne ko sama yaay après ma ñëw ma ñëw classe mu woo ma encouragé ma affaire yooyu noonu euh, ma ci bëri boobu jaayu ma sangu ba pare di seeti sama kër di seeti sama maam aw a Diouf moom mi ngi dëkk ginnaaw raay sama am ah, ma dem di ko seeti ji euh, comme dama yenn saa yi directu séeréer dañuy animé dëgg-dëgg benn apprenti la xaw foofu ñu fi ma doon jaayee di ma wax wuyu moom du ma wuyoo ma la faalew ma ma ne yow daal di saaga xanaa doo jaaykatu ndox rek comme séeréer la ma taxaw fayu yooyu yooyu daal yooyu daal xam naa nekk na ci ay xeer yoo xamante ni duñ ko fàtte. waa XFM man bi may ñëw comme li ma wax sànq fekk naa fa kolos mais naa fa euh, sama yeneen euh, collègue animatrice ñaar laa fa fekk donc man maa fa mujjee ñëw mais bi ma ñëw li ñuy wax chaque jour début bi c'était pas évident dafa doon metti parce que déjà man li may wax chaque jour euh, bëgguma lu ñuy witt man may bëgg nànk-nànk ñu bañ a doubler ñu bañ a jéggi benn étape. donc début bi métti woon na par exemple su ma fàttalikoo mos naa def benn émission à trois heures de temps neuf douze moo am jamono boobu neuf heures douze heures XFM rajo la boo xam ne dañ doon utiliser serveur lu bari ay yoon sax zéro appel su ma wàccee directeur bi woo ma encouragé ma wax wax wax dama continuer mais ci ndimbalu yàlla dem nañu ba nga xamante ni nii li ñuy wax en fait modestie mise à part. kër souvent de si presse bi day am vedette bu jigi dem nañ ba pratiquement émission yi fa nekkoon yëpp maa ko def donc noonu la fan club bi sama Ben Dom yàlla na ko yàlla yërëm Ndey Caam muy koo xamante ne nii euh, cercle VIP muy koo ku ku ku sori woon ci man parce que lu bëri maag moom ñu bokkoon classe Canada quatrième mais bi mu bi ma bàyyee man moom après par la suite gisanteetuñu bi ma ñëwee XFM ci lañu dajewaat par téléphone mu woo a téléphone fekk sama benn collègue moo doon ngénte ma dem fa moom mu dem fa après gis photo yi woo ma ne ma Adja man la diw yow nekkate yooyu a nekk fii ma ne waa am direct ma ne waa après noonu ci lañ gisante waatee mu nekk mu njëkk nekk sama doom mu taxaw di ma wax yaay après par la suite ci la ñu bëri ñoom moom ak ñeneen mu créé euh, fan club boobu euh, yàlla jël ko mu nekk koo xamante ni bu ma sañoon dafay dafay fekke lu bari bëri bëri waaw ma sañoon fekkee